salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ñu leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di ànd ak yéen saa su nekk yaakaar naa nag fi ma taxaw xàmmee ngeen ko ginnaaw bu nga xam ne defoon nañ fi benn entretien. ak ki nga xam ne moo di madame Diir mi nga xam ne nag daal ne xam ne ni boroom këram moom moom kër gi kër gi nag nekk kër ga nga xam ne uh, bëri na coow ginnaaw nag ba ñu defee ak moom interview mu nekk interview viral ñëpp daal di koy seetaan tax nag tey ji ñu fas yéene am beneen version ci ñi nga xam ne nag moo di famille Meng bu ñu duggee ci biir ñoom dinañ ci daal di gën a indi ay leeral su ko defee nag ma bàyyi mbokk internet yu Dakar Buzz ñoom aussi nag ñu daal si joxee seen appréciation ci commentaire yi di wax nag ngeen wéy di abonné ci suñu ay plateforme digitale topp leen ma dugg ci bi voilà mbokk internet yu Dakar Buzz comme ni ma leen ko waxee kaaw kër bi ba tey si lañ nekk ñu fas yéene ci indi ay leeral ginnaaw bi ñu daal déglu famille Ndir ba noppi tey nag dinañ déglu famille ki nga xam ne nag moo di famille Meng ñoom aussi ñu fas yéene ci indi ay leeral su ko defee nag ma bàyyi leen yéen ngeen xool fan rek la dëgg daal di féete sëñ bi. maa leen fay. ça va alhamdulilah waaw ñun dañuy wax par rapport ak terrain bi muy famille may Ndiongane Mbengue parce que ñoom fii seen titre la waaw dañuy gis benn femme def ay vidéo ne moom moomam terrain bi daf ko jënd woon devant notaire mais famille bi ñoom jaayuñu ko soit mu wax moom ban cabinet notaire la jënde yaa ngi dégg génn la euh, acte notariat ñu mën a xam déjà famille bi def nañ plainte contre moom. da def plainte contre contre euh, famille. bi waaw famille parce que il faut mu wax ñu kat moo ñu moo ko jaay ak nu mu amee terrain bi ak ci ban notaire la ko jëndee mais Khady Diagne mi ngi si tudd nag Khady Diagne jëndul terrain bi entrepreneur la dañ koy tabaxal dañ koy tabaxloo muy tabax ñun terrain bi joxe nañ ko mille 2008 ñetti terrain yu nekkoon fii yu fi bàyyi woon joxe nañ ko depuis 2008 comme moom nee na 2009 la jënte dina la gënal acte notariat ak numéro titre bi ak ban notaire moo ko jaay terrain bi nag famille bi ñoom ñoo ko jël joxe ko. yéen nag ngeen a amee terrain bi famille bi. famille ki titre foncier la numéro titre baa ngi nii andi numéro numéro titre baa ngi nii terrain baa ngi nii titre foncier la waaw famille Mbengue Mbaye Yongaan Mbengue moo ko moom. Mbaye Ñongaan Mbeng famille ñoo ko moom moom moo ko moom famille Mbeng ñoo ko moom ñoo moom terrain bi ñoom ñoo ñëw jaayu terrain bi. kan ngeen jaay terrain euh, Umu Wàdd lan jaay terrain bi Xadi Jaañ daf koy tabaxal rek mais Xadi Jaañ bi mu tudd nag tooñ na ko Xadi Jaañ du dara ci terrain bi du entrepreneur Umu Wàdd moom moom terrain bi moo ko jënd depuis 2008 des na yeneen ñaar terrain yoo xam ne tabax nañ ko. ñoo ñoo moom bokkuloon si li ñuy jaay. pourquoi ngeen bëgg indi si ay leeral te pourtant moom tuddul famille famille Mbengue. waaw xam nga moom tuddul famille Mbengue mais titre foncier 72 86 famille Mbengue ñoo ko moom famille Mbengue ñoo ko moom moom lañ li bëgg xam mooy ban notaire moo ko jaay yaa ngi dégg parce que wax na ba tudd ne dana jënd si cabinet avocat avocat du jaay terrain du jaay titre foncier parce que titre foncier notaire moo koy jaay bu fekkoon ne notaire la jënd. ñun notaire la ñuy amal problème mais nañu wax ba notaire la jënd ak moom nu mu def ba am terrain bi. Khady Diagne la wax waxul famille waaw moom Khady la wax Khady entrepreneur la day tabax ñi ñu bëgg a xam mooy moom nañu indil acte notariat acte boo xam ne dafa jënd devant notaire nañu ko indil indil ñu état de droit réel boo xam ne ni ci turam la nekk boo xam ne. boo nee notaire kawe ne avocat nga jëndee te avocat du jaay terrain notaire mooy jaay terrain ñun leeral yooyu kese lañ bëgg ci terrain bi waaw terrain bi nag famille dañ ko joxee depuis 2008 moom mënul ñëw ñuy liggéey terrain bi fu ne mu dem fa umu wàdd moo moom terrain bi moom la ko famille bi jox xarit Diagne di ko tabaxal comme entrepreneur waaw gis na nag mu yor ay documents mais documents yi wax génne yëpp génn fi acte notarial génnuloo la état douarel génnuloo la numéro titre foncier waxoon mënu laa wax ban notaire moo ko jaay. nee na yor waaw. da ngeen dem ci Descos indiwul document yi. bi demee ci Descos indiwul document indiwul acte notariat indiwul xam nga nag ñoom nu def ba créer seen fal si seen titre ñëw tekk ci terrain bi mais terrain bi ñu ko teg dafa am borom boroom am ci ay kayitam waaw. lii essence bi la. essence du terrain bi. numéro titre bi waaw. année originale bi. original bi ngi la année original original mi ngi fi tous les documents mi ngi ñun documents yëpp mi ngi fi waaw. 72 86 famille Mbaye Ndiongaan Beng moom boo xoolee droit réel bi li taxoon ñu def si essence du Sénégal boobu échangé guñ ko woon léegi ñu defee échange bi 72 86 appartient exclusivement à la famille Mbaye Ndiongaan Mbengue ñoo ñoo jaay umu waad umu waad jox Khary mu koy tabaxal ndaw si nag loolu la ñëw di ko expliquer xamul sax kan moo acquérir terrain bi entrepreneur bi la jël di ko cité yooyu noonu yëpp mënoon naa ñàkk parce que ku yor lu leer Sénégal dëkku yoon la bu yoroon lu leer duñ ko débuté tribunal classé ko sans suite si ordonnance yi Khadija Ndior yëpp Oumou Wade dañ débouté Cheikh Ndir procureur classé waat affaire bi sans suite xamal ko ni li ngay tabax euh, si lu leer nga ko teg yow yaa moom terrain bi parce que famille mbay Ndiongaan Mbengue moo la ko attribué depuis mille 2008 léegi nag ndaw si moom mu ngi naan kii jabaru Cheikh Ndir bi mu ngi naan Khadija di ko proposé terrain deux cent cinquante mètres carrés cité Moundara ak trente million loolu yarul maanaa loolu moo gën a cher ñetti terrain yi nga taxaw nii si li nga taxaw nii li mu naan moom lañ ko proposé moo gën a cher lii fuuf si te mu dara moo nekk fii si kanam kon wax ji yëpp ñun dañ ñëwoon pour leeral rek parce que dëkku yoon la waruñu woon ñëw sax si ay caméra wala ay audio di wax tirbinal lañ ko war a régler mu jeex mais comme taqal na di suñu jigéen muy. xarit si yoon la jóge nii lii fi ñu toll nii pour liggéey la nekk si yoonu liggéey si la nekk nii lépp pare na moom nag bu amee lu muy wax jaruloon muy oo ay journaliste ñu koy filme muy gën a yokk joote di taqal ay deru gor loolu mënoon naa ñàkk mënoon na dem si yoon fi mbaxane doonee benn lu yoon wax rek ñu xam ni loolu la parce que loolu lañ toppoon borom terrain bi loolu la topp ba yàlla dogal na si lim siy dogal jot na ay këyitam si liggéey nag la nekk ñun dañ oote woon rek pour leeral. su ma déggee ni ngeen waxee euh, bu comme euh, kër gi damay gis ne que def nañ fi arrêt des ko d'après information yi ma jot njëkkoon ne commencé woon tabax euh, ñu ñu daaneel ko ñu defaat fi arrêt des ko à chaque fois ñu échanger. waaw loolu yëpp mooy wàllu yoon dëkk yoon bi moo nekk noonu gis nga nag buñ demee ba daaneel nga ñëw gisaat tabax. kon xam nga ni bi nga daanelee yoon moo daaneel bi tabax amee yoon moo tabaxaat quoi dañuy topp logique bi rek bi nga ñëwee daaneel ki daaneeloon moo autorisé waat nga tabax waaw kon moom fi mu jaaroon noonu li mu doon wax la gars yi toppoon ba topp ka si loolu pour leeral am bi leeral amee tabax bi ñëwaat na continuer léegi si li mu jaar nii nag mooy li ma lay wax rek dañuy wax nii pour leeral opinion bi rek parce que mënoon naa ñàkk. ñu dem tribunal lépp leeree fa mais leeree na foofu mais dafa am deru góor yu mu taxal. tribunal kon yéen a fa gagné famille Mbengue. nee naa la débouté nañ ko une première fois classé que sans suite une deuxième fois troisième fois bi nii nag nee nañ ko li ngay tabax si lu leer nga ko teg yow umu waad si lu leer la tax li muy tabax nii loolu daal moo indi woon ñu oo leen pour leeral rek mais kii Mbaye Ndionguane Mbengue nga am ñoo ko jaay. depuis 2008 ñoom ñoo moom 72 86 83 40 li ma yor ni essange la après nga jël ko comme kii yooyu noonu yëpp ay titre la yu góor gi moomoon ñi ko moom nag ñoo ko jaay par le biais de Malal Diallo. kooku la. waaw maam la mooy mbéngeen bi rek waaw benn maam la rek mooy mbénjoo ngaan mbéng. est ngeen dellu siwaat bu baax a baax ci échange d'état bi naka la demee. waaw échange bi mu ngi nii. xam nga dañ ne la suivant acte administratif approuvé le 29 10 1996 l'État du Sénégal a cédé à titre d'échange au sieur Mbaye Ndiongane Mbengue le solde du titre foncier 26 320 DG d'une superficie de 26 345 mètres carrés exproprié pour cause d'utilité publique. Les terrains échangés étant, étant situés dans la zone d'Ouest Foire, il est résulté de l'opération une somme de 11 159 mètres carrés en faveur du sieur Mbengue waaw léegi mooy mooy comme comme tey jii nii acte administratif état bi mu xoolee ba soxla titre bi nga xamante ni Mbaye Ndiongaan moo ko moomoon mu nekkoon vingt six trois cent vingt DG boobu newuloon Ouest Foire waaw mais mu ngi toll mu ngi doonoon numéro 26 320 DG nekkoon 15 186 mètres carrés dëkk soxla woon mu jël ko defar ko essence 72 86 boobu mooy biñ ñu taxaw nii tey DG ak 83 40 mu ngi si booru rond point Yoff bi parce que titre bi état soxla woon si moom moo rëy moo tax ñaari titre la def essence ak moom. ñaari titre benn bi mooy 72 86 beneen mooy 83 40 loolu yëpp boo ko boolee day doon vingt 26 345 mètres carrés. si je comprends bien état dafa jëloon seen suufu maam léegi après si la leen fay fii. léegi affaire yi naka la def euh, ba egg ci ci loxo ki nga xam ne moo di umu umu wàdd. waaw famille bi yow bu buñ la échangé li nga moom après mun nga ko jaay looloo indi umu wàdd am fi. directement umu wàdd du kese du moom kese de fii kër yi ngay gis nii yëpp 112 86 bi la bokk ba si Elton bi ñu lay wax nii loolu yëpp dañ ko jaay par kenn kenn kenn kenn Oumou Wade si ñi njëkk a acquérir la bokk depuis 2008 xam nga mais new fi woon tukki comme am na ñeneen ñu jëndoon tamit bàyyi noonu mais buñ bëggee tabax dañuy ñëw tabax mais di nga toog nag yor sa terrain nit di si bàyyi xel di si jéem leneen ba ñëw naan moom jënd na si notaire ak yooyu yëpp. duñ ko weddi de mais da ngay indi kayit yu ko firnde wane ni famille bi moo la jaay xam nga li ma mais moom li muy wax yëpp même bu tegoon kayit tey loolu mënul féetee kaw kayitu famille bi nii parce que ñoom ñoo moom yow mën nga Sénégal nag mën nga teg sa sa kër nit ñëw jéem si dara terewul bu ñu demee ba si cëppaa ndaw li kayit mooy féetee kaw si am kayit mooy jël kër gi quoi lii du titre d'état titre foncier la waaw uma waa da ko acquérir légalement keneen ku si jéem dara après deux 2008 nga si jéem parce que ñoom ay 2009 sax sax lañ lay wax te fekk ne 2009 terrain yi fii daanaka jeexoon na nit ñi muñ ko tabaxul woon sax jëndoon nañ lépp loolu daal mooy wax ji.